moo jiite délégation bi ànd ak ministre d'État Mbaye Ndiaye ànd ak ministre sëñ Mbacké Ndiaye ak député Alioune Badara Diouf ak Saliou Kayta directeur général foire bi honorable député Mbaye Niakoso Adja nen na soxna nen gay kooku ñaari tànk la fi taxawe soxna Serigne Khadim Gadiaga Adja Dior Dieng Seynabou Fall Mamadou Elhadji Ly Abdou Ndiaye Khady Diop Sow ak Serigne Mbacké Ndiaye ministre ak maire Parcelles Assainies ñoom ñëpp gis nañ leen ak sëñ naa Issa Samb nu bëgg nag lenn Serigne Touba du asaar kii bëgg wax Bour Sine Coumba maamam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 Euh, di la jotale nuyu président de la république muy nuyu bu sell euh, ñu la koy jottali ngir nga yeggale ko ci xalif général des mourides suñu sëriñ sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru di nuyu kilifa yi fi teew yépp sëriñ Basiiru Mbàkke Abdu Xaadr sëriñ Koso Mbàkke mu sëñ Muntaxa Basiiru sëriñ Fàllu Mbàkke mu sëñ Baara Falilu di nuyu jëwriñ sëriñ Mbàkke yu fay mi nga xam ne moom lañ dénk ndakaaru suñu jëwriñ Yuusu Jóob ak soxna Soodo Xuma mi yor liggéey bi di nuyu tamit maire yi nga xam ne ñoom ñoo ñu fi dalal le maire Jamil Sané nga xam ne moo yor parcelle Assainies ak euh, le maire Seydina Issa Lay Samb mi nga xam ne moo yor commune yoof sëriñ bi président waxoon na ne bu ñu ñëwee nañ leen euh, nuyu euh, jël nuyu bi gën a sell teg ko sa ngir nga joxal ko sëriñam waajuram sëriñ Muntaxa Basiru defe naa ne fan yi jàll ci màggal gi li président wax ci digganteem ak sëñ Muntaxa Basiru kenn mënu cee teg lenn lenn li ñu mën rek mooy ñaan diggante bi gën a rafet euh, ñaanal sëñ bi mu yàgg fi te dajeek ngërëmal sëñ Touba leneen li mooy président nee na ñu fàttali la mu waxoon rek ne sant na sëñ Touba bu baax a baax a baax a baax wax na ko ci kanamu jëwriñ mbàkk yu fay ndaxte ku yàlla dimbali ci sa liggéey bi la yàlla dénk nga defal sëñ Touba autoroute bu jëm Touba lépp lu ñu wax ci inondation Touba nga def ci li nga mën lépp loo xam ne dafa jëm ci dëkk bi di ko lim mën naa koy lim ba mu toll ci deux cent milliards bi mu faloog léegi kooku sant nga sëñ Touba ndaxte sëñ tubaa dafa am fay ku ko liggéeyal jarul sax ngay xaar xam nga ne yàlla dina la fay loolu nag moo tax amul benn bés rek bu ñu wootee ngir jëmmi sëñ tubaa te ñu koy néewal moo tax tey mu ne nañ ñëw teew si fi ndaxte ku ne xam na ne julli géej gi dafa am solo ci e, tukkik sëñ tubaa ku ne xam na ne ni ko jëwriñ mbàkki yu fay waxee léegi bës bis bi sëñ bi di jógee baar yi jaar jeewal ba fii defe naa bokk na ci bés yi nga xam ne moo gën a am solo ndaxte ku jàng asiru maal abrari na asiru wa zanal idaani unaaka asiru xam ne sëñ bi ñi ko jàppoon foog ne ab prisonnier lañ jàpp xamuñu woon ne ki ñu àndal dafay liggéey li yàlla te ñoom dañ leen ci boole rek ngir mu am ngërëm boobu nga xam ne moom lañuy ñuy barkeeloo ba tax suñu réew doon réewu jàmm sëñ Youssou Diop ci sa discours wax nga lu am solo ne bës bi dafa dëppook journée mondiale de la paix te ku ne jàmm ne sëñ Touba ndaxte li nga wax ci bés bi nga xamante ne sëñ bi wax na ne bu xalaatee jëfinu commandant bi xelam day dem ci jël ngànnaay loolu wane na ne sëñ bi xam na ne jamono ji li koy defal mooy euh, jihad ilal taqwa wal olo bi maanaam ci ragal yàlla ak xam-xam loolu nag baax na ñu koy fàttali ci jamono ji ndaxte jamono ji ñun li daarul woon peuple yëpp daf ñu daal léegi maanaam réseau sociaux yi nga xam ne ñoo ne ci téléphone yi ñu ciy wax naka sudul noonu bu bu yàgg ba sax wax yu ñaaw yeeg jaxasa yeeg lépp loo xam ne day féewale as askan ci ñun la yemoon rek ci homme politique yeeg nangam ak nangam léegi dafa dem nag ba àgg ci diina ji ba àgg ci suñu ay kilifa te loolu dara waruñu ko jaral ndaxte Sénégal révolution bi fi mat a def sëñ Touba def na ko ba noppi réew mi soxlawul révolution réew mi évolution la soxla ndaxte sëñ tubaa bi mu fekkee li yonent bi def dafa ñëw yeesal ci lam ci war a yeesal ñu nit ci wàllu politique ku ci ne rek bu ñëwee le président Senghor def faaw rek président Abdou Diouf dina ñëw yeesal ci lam ci war a yeesal président Abdoulaye Wade yeesal ci lam war a yeesal président Macky Sall yeesal ci lam war a yeesal waaye nag ñun mënuñoo ne ci dëkk boo xam ne suñu sëriñ dafa wax wallahu yansuru nii wal xalqu tatbaawu nii fil barri wal baxri zanafin bila dararin ñu nekk ci dëkk boo xam ne dañ ñu bëgg a gëmloo ne problème boo gis rek nañu toj nañu taal nañu xuloo nañu dem ci réseaux sociaux yi di wax lu bon loolu nag ñun ni murit waruñu ko nangu ñun réseau sociaux yi téléphone yeeg iPad yi li tax ñu defal ñu ko mooy jàng alxuraan jàng diine jàng xam-xam ut métier di liggéey di defar suñu réew donc loolu moo war a tax ñu xam ne jamono ji li ko yàq mooy waxante lu bon jamono ji li ko yàq mooy jàpp rek ne jàmm régleetul dara te sëñ bi li muy am yëpp ci jàmm la ko amee ci xam-xam ak ci ragal yàlla donc ñun ñi nga xamante ne ñooy ndawu Sénégal li ñu war a def mooy bu ñu buggee yàlla di ñu dimbali ndaxte li dal sëñ bi ci géej gi ndimbalu yàlla la ndaxte gëm wàccoo benn yoon sàtt suñu borom yi moo lay may nga mën a def li muy def donte xam nañ ne moom rek la ko may waaye ñun nag buñ jàppee ne ngëm wala am fulla wala am fayda wala topp suñuy aada ak li nga xam ne moo may Sénégal wéy wi nga xam ne moo tax ba tey ñu ñuy wax naan ñu ñooy réewu jàmm ñu ñooy référence loolu bu jàngee ci sëñ bi mooy liñ ci jàng ci moom mooy ànd ak ngor dëgër ci li ñu ne te doon dëkku yiw di waxante lu baax di defante lu baax loolu moo doon kàddu yu gàtt yi nga xam ne bëgg naa ko andi ndaxte xam naa ne